Le mariage le plus rapide du monde Marème Sy Monkin alias Nar Diop Madame Ly di actrice fii ci Pikini production ñu gën ko xamee ci série Madior ak Dior ak Duman moom la fi Gambien bi takkoon may ko 10 millions yi sëy ba nag tas na première sëyam moom nee na sëy du benn nit rek moo koy def ñaari nit ñoo koy def yaayam def ko forcé woon naan ko dugal ci sëy pour sa buntu wërsëg tijjeeku comme ni ko mairie rek di defee moom naar mu nekkoon. su ma si paree pour génn duma ko nëbbu dama si génn moom nee na ba mu demee ba xool ne su ko continuer moo siy gaañu dafay préférer mu daal ci génn waaye jëkkëram boobu ku baaxoon la ku amoon jàmm la deuxième sëyam moo ko tànnal boppam moo ko bëggal boppam ci la am doomam jooju moom naar ba tey nee na waayam jooju ku baax la amul benn problème waaye seytaane rek fu mu xajul lay dugg naar faal manqué sëy ba ak gaamiyee bi mu nekkoon première femme ci ñetteel